i nag Sonko dépose na li nga xamné que modi euh, recours chambre euh, wala comme sax cour euh, suprême ginnaaw rek ba nga si am accusation gànkale bobu de recours exactement si bobu de procès seenu ko diggante ban gis nga am ci bobu de dossier ñeel affaire suite Beauty waaw xam nga xam nga xam nga suite Beauty moom dama yag wax ni hmm. c'est une affaire bo xamné ne waru woon dépasser le stade d'enquête waru won dépasser waru woon génn gendarmerie hmm. parce que ñep xam nañ ni vraiment ay ay ay c'est un cabal vraiment contre Ousmane Sonko ñëpp ñëpp même ñi nga xam ñoo Macky Sall sax ni li amul base teguwul fenn lañ ko bëgg def juste pour éliminer un adversaire politique amul leneen déclencher machine judiciaire comploter def cabal contre Ousmane Sonko amul mais Macky mo dit Ousmane Sonko. wa xam nga man nak nekkuma ci ay mais est-ce que vous voulez analyser parti non non c'est pas analyser nu mais dañuy wax li nga mais parce que citoyens sénégalais ñoom ñoo citoyen sénégalais kay kon mais ci pourquoi les citoyens sénégalais mais les sénégalais les ma sénégalais naka la citoyen sénégalais ñaari citoyen mm. mm. mm. kenn ki bàyyi keneen ki. kan leen protéger. waaw mais gisoo ni keneen ki ku jigéen ki Adji Sarr tey koo jëlal appartement di ko ko ci dans de bonnes conditions. mais seen dayoo bokkul. non mais lan mooy seen dayoo bokkul. Hmm, xam nga loolu su amee rek. mooy saa di far dugg la. mais xam na Adji Sarr moom. te gis nañ fi lépp

donc état neutralité la war a demee donc suñu demee vraiment ba jël machine judiciaire jël loo xam ne vraiment ah, affaire boo xam ne ay viol boo xam ne vraiment du amul bopp amul genn même ñi nga xam ne sax ah nee naa la ñoo farak Macky Sall man certains de mes amis da da lay naan sawaay ñu daal ay caaxaan la rek ay caaxaan kese amul leneen. <laughs> <laughs> alors je vous rappelle que ñi nga ki nga xam exactement si troisième mandat bu président Macky Sall troisième candidature mhm. justement euh, Le monsieur qui gis gis ñi naan deux quinquennats euh, troisième mandat après euh, waa APR jamono ji na investir de partout président Macky Sall Ben analyse nga si def bon xam nga loolu mooy tey taxaw di évoquer troisième mandat ou bien troisième candidature illégale anticonstitutionnelle et illégitime de Macky Sall je yëpp sénégalais xanaa déglu euh, Ismaïla Madior Fall. xam nga sénégalais yi Ibsen Ismaïla Madior moo ne woon nul ne peut faire de mandat de deux mandats consécutifs te moo ko waxoon. Hmm. ba répété ko trois fois pour ñëpp mën koo dégg. donc xam nga xam nga xam nga tey ak bakkan yi rot 2011. Hmm. ngir xeex troisième candidature Ablaye Wade ak ñi ñu jàpp ñoom Fodé Ndiaye. ndeysaan hmm. ñu rey leen ci. ak ñi xam ne jàppoon nañ leen 2011. police leen. opprimer leen lan pour xeex troisième mandat ne lii bu mu fi amati. Hmm. Macky sàll teewoon bés boobu noonu teewoon fekkee ko indi woon yoroon mer gàddoom yoroon mbàjjam ne dafay fanaan si. Hmm. pour xeex bu loolu moom Macky Sall ànd ak soxnaam Marème Faye Sall mais pour xeex ne troisième mandat Ablaye Wade duñ duñ ko nangu mais ndax même Macky Sall boobu noonu war naa taxawaat ci kanamu sénégalais yi jàkkaarloog ñoom nan lañ def damay di am troisième mandat. amoo yow la nga doon la nga doon wëccu démb yëpp nga bëgg ko xeer lekk ko moo tax waxuma la ay bul ma wax ay jurisprudence bul ma wax bul bul bul ma wax ay constitution sa su neexee mais indil ma moral rek moral moralement le président Macky Sall warul taxaw ci kanamu sénégal sénégalais jàkkaarloog ñoom naan leen noo damay uti troisième candidature moralement waru ko def. donc partam gi nii jàpp nañu président Macky Sall euh, troisième mandat xelam. waaw bon parce que jalon yi muy teg yëpp mooy jalon ku bëgg a toogaat ku bëgg ku fi bëgg a toogaat mais peuple bi ñoo ko dul accepté xam nga tey xam nga tey xam nga xam nga tey xam nga tey dafa neex dafa neex troisième euh, troisième candidature serait une demande sociale les apéristes waaw selon les apéristes xam nga loolu moom am nga ci droit wax <laughs> selon les apéristes selon selon les militants alimentaires tu me dirais les militants alimentaires bah, waaw voilà waaw bon militants yi ñuy dundal rek selon les militants alimentaires Macky Sall daf fi parce que tax xamul loolu tamit hmm. dang koy dang koy dang koy dang koy dang koy tek ci ci ci nécessité de survie hmm. ta moy nit ko xamné vraiment euh, xam na ni su ñàkkee li delu fam parce que liggéeyul hmm. liggéeyul xam-xam bayu ko fi ay pexé mo def ba mu tok te fofu muy fofu mu tok mang fay am mang fay mang fay am lo xam su jaaroon won du ko am su dëkk bi jaaroon yoon waru ko am mais kooku tey lépp lu mu mën a wax wala lépp lu mu mën a def pour dëkk bi pour pour euh, fa mu nekk bu bañ faa jóge dana ko def. Mm. waaye tamit ñun ñi nga xam ne jàpp nañ ni lii nekkul euh, nekkul ci yoon. Mm. jaarul ci yoon lu mu leen jaral benn jaral nañu ko fukk donc Macky Sall vraiment na jàkkaarloog sénégalais yi. vous wax leen non ñun euh, moom. li ñu pare li ñu li ñu pare duñ ko sax wax mais parce que Macky Sall mais xam naa ni moom Macky Sall non non lu ñun opposition lañ opposition radicale lañ bokk eh. donc Macky man xam naa ni eh.

Euh, justement fa nga xamni tam itam mooy zone Parcelles Assainies euh, juste au lendemain de ces élections lan leen mën japp par rapport ak ak ki nga xam que modi euh, jami sane Sané si wàllu parcelle et puis su non def bilan am à mhm. travers li nga xam que modi euh peut-être un an yi nga xamni tam tok na fa mhm. si fan na ko war nat wa man wessuna jami sane Sané xam nañ ko xamuñu ko loolu moom weesu naa ko vraiment au lendemain des élections wa lu motax ma ne weesu nañ ko

y a des réalisations yo xamni euh, et des avancements yo xamni vraiment amu foon te mi ngi am ci bir parcelle assini comme quoi comme quoi yimu ci meuna tuddu bari bëri na. Hmm. tay demay jël exemple informatisation bi nga xamné bëgg nañ ko def te ñi ngi ci léegi mu léegi mu aboutir te moy parcelle assini da nga da ngay ñëw di di di uti sa kayitu juddu ñaan leen demal ba gannaaw suba hmm. tay ci kanam tuuti da fay dak parce que commencé nañ informatisation bi hmm. état civil nga xamné tay so soo soo pour out sa kayitu juddu wala nga out ñëw pour out benen kayit ci sa ci 10 minutes du ko mat ñu jox la sa kayit ne la nga dem tay so ñëwee ci état municipal des Parcelles Assainies ñi ngi jëm ci yoonu def homologation bi ñu ngi koy waaj a fekk nañ fa facture 11 millions de Senelec fay nañ ko vi euh, euh, yi defar nañ ko parti bi nga xam ne moo daan woon defar nañ ko te xale yi commencé nañoo football guddi xale yi parcelle léegi ñu ngi football guddi loolu benn la ci tey nga gis ne ci côté euh, euh, santé ci côté euh, social Jamil Sané fexe na am partenariat avec la CMU la couverture maladie universelle ba mën a enrôler douze mille xale ñoo xam ne ah day jël da leen defal prise en charge à hauteur de quatre-vingt pour cent mais aussi boole ci les agents municipaux cinq membres de leur famille les agents municipaux et cinq membres de leur famille ñu jël à hauteur de 80 pour cent euh, euh, pour pour prise en charge médicale tey nga ñëw ci écoles yi écoles yu bëri biir Parcelles Assainies ñi ngi jëm ci réfectionné ko yenn ñi yenn ci écoles yi seeni toilettes pare nañ ba defar nañ ko pare ba pour le pour le bonheur des enfants pour le grand bonheur des enfants xale yi dem toilette parce que parcelle am na école amne bien benn école bo hamne ne sax amul toilette amul woon toilette. tey nga gis ni tamit ci côté euh, euh, urbanisme euh, habitat infrastructure nga xam man may président commission bi ko jiite nga gis ni marché Dior am lo loo xam ne def nañ ko fa te mooy déguerpissement am na tablier yi nga fa wa mais c'est normal nous hein, c'est normal wa mais dans protection. da nga koy teg ci goudi euh, trois mois euh, non non non non non dañ ko teg non euh, trois mois avant normalement normalement normalement non déguerpissement pisma sa jour guddi la soo dem barki dem bi ñu koy def bi ñu koy def deux fois Cambérène ni chaque guddi lañ koy def déguerpissement kenn ko def bëccëg parce que embouteillage gi ngay créé moo tax euh, embouteillage yi ngay créé moo tax dañuy dañuy xool le temps temps bi nga xam ne police am na ko waaw mais loolu loolu loolu loolu yëpp du si dara nga def ko guddi ak bëccëg du si dara parce que li am solo mooy ndax avertir nga leen loolu la laaj ndax jox nga sommation mois avant jox nañ sommation mais quand même c'est difficile. non mais mais liggéey bi euh, si nga ne du si dara muy bëccëg di guddi. non du si dara du si dara nga def ko bëccëg comme nga def ko guddi li l'essentiel mooy ndax ba nga koy def. jox waaw mais est-ce que waaw mais est-ce que ci war nga jaay ci kaw tali bi war nga jaay ci voie publique yow nangu nga li am Parcelles Assainies yow yow yow yow nangu nga tey nangu nga tey waaw kay foofu moo tax ma wax la ko moo tax ma ne la ñun balaa ñoo def balaa ñoo def loolu balaa ñoo def loolu dem nañu toog waxtaan ak ñoom waxtaan nañu ak ñoom trois mois avant jox na leen jox na leen sommation pour wax leen da ngeen fi war a jóge à daf sàngam nee naa la mois de novembre 2022 lañ fi waroon jóge ak festival bi amoon ak non non non xam nga xam nga xam nga non avant ngeen ay zone de recasement xam nga normalement sax ah. ambulant moom ñun waruñu ko yóbbu fenn loolu mooy loolu ci yoon ambulant moom waroo sax toog di jaay Amina dafa bokk suñu identité fii ah identité mais bokkul ci ci ci nomenclature kii de. non non mënu secteur informel la dëgg la mën nga ne waaw dañuy jaay daan seen doole dëkk bi dafa métti Macky Sall teg na ñu xale yi kenn amatul liggéey non fay ñu juuti fay ñu patente kay mais man mi nekk ci mairie bi man mi nga xam ne maa doon toog ak ñoom man mi nga xam ne maay hmm. président commission bi nga xam ne tey ba leen fay jëlee li leen fa jëlee mën naa ni ah ci ci ci ci ci commission boobu maa ko dirige waxtaan nañu ak ñoom jox nañ leen sommation euh, nu mu tudd euh, wax nañ sax ba proposer leen place. waaw man xam na sommation day am suite maanaam su ma la joxee. maa ngi ñëw maa ngi ñëw. deux mois ma ñëw mois moo des trois jours moo si des moo si des suba ma lay yëkkati. est-ce que fi ñu tàmbaleeg ñoom fi ñu tàmbaleeg ñoom fi ñu tàmbaleeg ñoom fi ñu tàmbaleeg ñoom mooy bi bi bi bi la maire Jamil ñëwee dafa ne yéen du ma jël dootuma jëlati. seen seen seen seen seen euh, nu mu tudd seen patente parce que da ngeen fiy jóge cooli cooli yëpp loolu soo gisee cooli bëriwul yëpp lii la depuis un an depuis ils ont reçu l'avertissement non non ñun jël daanuñu jël seen kii ñoom ak garage yeeg yu bëri jëlatuñu seen seen seen seen seen seen ODP jëlatuñu leen ko parce que fi ñu jëm moo tax fi ñu jëm moo tax jëluñu ko parce que comme dañ leen fi war a yëkkati bés boo jëlee seen xaalis yaa leen tooñ

mo amatul terrain bu municipalité bi momal bopam té ñu loolu réalité bu ñu fa fekk la. mu ko lijjanti. fan lañ koy lijjanti. budget mairie lenn non budget mairie xam nga yeen budget mairie bo xamné 2 milliards moy budget 2 milliards 2 milliards 400 mom moy mom moy mooy moom budget budget primitif pour intérêt collectif force dang koy jël. ban terrain la ci obligé manam terrain bo leen mën euh, mais day fekk nga mom day fekk nga am fa terrain. si mais ngeen jënd. non mais mais jënd du nonou C'est que le problème, c'est que Sénégalais, c'est que les femmes Il y a un budget donné qui est en place pour mairie. Non, mais budget, c'est que nous avons un côté qui est trop à Jamil, nous avons un dem jëndi dafa am fu muy jaar pourtant patente lu am solo lay indi si budget mairie waaw mais même su fekkee lu am solo la mais su fekkee tam am leen lu muy yàq day yàq nu mu tudd harmonie bi day yàq vraiment environnement bi day yàq cadre de vie bi mais il faut faire un choix et on a fait le choix c'est-à-dire ñu ñu ñu ñu nous rétablir ñu protéger le cadre de vie des Parcellois moo ñu gënal loolu kese la ñun ci ñun lay gën a parce que ñun lañ fayatul. alors te suñu fayul suñu budget du mat. alors c'est loolu seen doom wala comme sax euh, hein, le grand Parcellois mooy euh, le premier ministre Amadou est-ce que euh, au sein de son magistrature mu leen impacté. waaw mais waaw kay loolu nag moi lu am solo parce que Amadou Ba. Hmm. foog nga xam nous ñun on a dépassé le stade de la politique. il est ministre vraiment tey am na ñaar am na kenn koo xam ne soo nee premier ministre rek. Hmm. sa xel lay dem ci moom Idrissa Seck. Hmm. te mooy la mu defal ko xam ba mu toogee. Hmm. ñun foofu la ñuy xaar Amadou Ba. mais dinañ jël xaalis yëpp sotti ko parcelle. non mais jël xaalis bi sotti ko parcelle mais moom moo moo soxla moom moo ah. nar a soxla ji parcelle waayi moom moo nar a soxla ji parcelle waayi te dama lay wax le maire Jamil Sané.

jéem a xool li parcelle waaye bëgg ñu def ko. Mm. mais bi ñu ko seetee mooy tey Amadou Ba. Mm. gis nañ ni mm. euh, euh, li retardé liggéey bi yëpp nekkatul ci mairie parcelle mi mu ngi ci état du Sénégal. parce que bi ñu demee tey di def euh, dem sur le terrain di xooli route yi nga xam ne war nañ tal yi nga xam ne war nañ ko defee biir parcelle parce que les aux parcelles les les routes sont vétustes maintenant. bi ñu demee di ko xool mais AGEROUTE ànd ak waa AGEROUTE ànd ak représentant de de l'ONAS et tout mais. le gars euh, entrepreneur lu wax hmm. état bi daf ma ral xaliss suñ ma avancer ma commencer liguey bi ñu jël document bi ñun yëm nañ ba ci Amadou Ba Amadou Ba tam won ñu document bi hmm. waxon nañu au mois de février travaux yi da fay tambali donc monsieur le ministre parcelle way yi yow lañuy xaar vraiment nga jappalé euh, parcelle bi nga xamné fa nga dëkk hmm. à travers son maire Jamil Sané ñen and ngeen liguey parcelle parce que parcelle way ñoko soxla

mooy jëmale kanam Parcelles Assainies ci li nga xam ne aussi mooy euh, actualité li nga xam ne moo xew